Salam mbok internet yi ñu dal ak ci émission Today News manam actualité mbedd Today News nak tay dañ leen fi parcelle Nous uti tay ci parcelle dañuy théâtrale fi ci ben troupe théâtrale bu Nay troupe théâtrale bobu nak ki di Tobola moko jité dañ di ak ci biir école bu tuddu PAG di nga fofu lañuy répéter, mu ñu won ñom seen ak linge, wa linge, ñëppi fan a ngi nii waa tund bi ni ngi lay wër nga ñëw toog ci àll gu lëndëm gi lu xew xarit sama jaaxle moo waral ma toog fii jaaxle waa lu waral nga jaaxle xarit sama sama tukki woon te mat na juróom-ñaari fan si tey xaw ci li mu nekk te moom kat bi muy def si yoonu ndox mi la jaar dal dina te sama gént bi tey na sama xel lol ay eh, capa jël wa capa sank ba lay may top sa ginnaaw di la woo nga melni kuma ku dégg mais bama soxla nga ñëw ba ci man ya xam ci rek ak bëgg a si yow lan la woon wa xana da ngay voyage damay tukki xanaa ci nga jëm sori sa bagage ba booy fils Espagne la jëm booy ah kon chapa da nga am visa duma ma koy doyee ci gaay la jaar non maa ngi tudd Ibou Togola eh, di président metteur en scène troupe Nayler Papa Saraceni. léegi dañoo bëggoon nga wax ñu lan muy biu Nayler lan moo ko tax a jóg. waa Nayler comme ni nga ko déggee rek Nayler moom leeral na ba pare lu leer daal lañ bëgg lépp loo xam lëndëm na si biir kër yi ñu génnee ko leeral ko mu leer naa njariñ bépp askan bépp jariñoo ko.

plus plusieurs centaines yoo xam dañ ci yow dañ ci décédé ñu jógoon nag ñoom lu tax ñu joué ko sax dañ ko doon joué fan yii passé daam fu ñu ko doon il est difficile de sourire lorsqu'on veut pleurer mais le plus difficile reste à croiser ces agresseurs qui sèment la terreur comme des animaux à quête de putain. oh non

sànq ba nga doon récité poème bi gis nañ ni da nga cee ànd ak xadar ànd ceeg euh, chaleur maanaam nit ñi sentir nañ li ngay def daal est-ce que da nga cee musa am jaar-jaar. du ma wax jaar-jaar bi direct la mais jaar-jaar yi mën naa wax indirectement la ndaxte fii gisoon nañ fi ay temps ñu bëri ci famille yu bëri du sama famille mais famille samay mbokk ñuy génn di nga gis doomu diw mbokk diw génn jël gaal gi mu ñibbisi déedéet dee ci ndox bi. bu ñëwee ay parents bi ñooy souffrir te ñun dañaa war a xam ne ñun ndawi réew ñun rek ñoo mën a liggéey ci suñu réew. waaw il fut euh, temps euh, jamonoy nguur gi la parce que affaire dafa dëgëroon dëgër ci zone yëpp boo xool ba mu dëgëree dëgg gars yi gëm ñoom ñëpp gëmoon nañ ne euh, fii mënatoo fi tekki wala gëm nañ ne dëkk bi doo fi am dara ils ont choisi xëy na génn moo tane ba ñu jotoon génn tam gis nañ ne bu ñu génnee fee moo gën a dëgër sax fii ñenn ñi ñëwaat nañ ñenn ñi malheureusement dee nañ ci géej gi waaw. da moo tax ma soit théâtre plus waaw saa ga waaw saa ga théâtre c'est un moyen boo xam di nga wax ak nit ñi di nga wax ak nit ñi di nga mun génn li nga xam ne moo nekk ci bir li nga xam ne moo ci biir kër yi di nga ko mun génnee nit ñi toog seen biir kër di ko seetaan da nit koo xam dafa toog am naqar nekk bir këram am jafe-jafe xamul lu mu koy dundee mais une fois que nga génnee ko si kii bi day mel ni moom ngay waxal waaw à travers le théâtre dinañ ci dinañ ci dinañ ci génnee nit ki dañ ci génne ki ak ñi nga xam ñu ngi ñi nga dimbal nit ñi fépp jaaral naqar teew ndeke boobu matul waay xañ ma ndey xañ ma baay kulli nafsin saayi xatil maut. bakkan bu mas dina mas dee Cai sama jàmmañ soma ma tàgg woon doone dem barsa mbaa barsa tey bi su tey fàttali ma sama bisu àjjuma bi metti woon lool si man ana lan moo ko waraloon dee bàjjo bi xanaa xamoo leen luy sa wërsëg bala ngaa dee bu ne dinga si jot te bu ñu génnee réewu jàmbur léegi boobu rek lañuy ñuy liggéeyal duñu liggéeyal rek sew réew mukk ndax dañaa seetlu tamit lu bari képp ku jóge fii suñu réew surtout senegal tamit soo demee bitim réew soo fa toogee doo ne da ngay liggéey ñëw investir sa réew mais yow da ngay liggéey toog foofu di investir réew moom di envoyé sa sa famille xaalis mais loolu taxul ñu naan loolu mooy développé réew développement réew pour ñëpp jeunes yi yëpp dañaa war a ñu toog seen réew même bu ñu amul ñu jóg di daanu ba keroog ñuy am ndaxte lépp jógul rek sotti. maa ngi tudd galay mbay dëkk Parcelles Assainies unité 5 nekk ci troupe nay leer di ci lu pour jéem a avancer ci art bi pour yee sama yenn moroom yi daal. soo demee bay bàyyi sa réew war nga mën a jaar ci lu leer parce que immigration clandestin nekkul ci gaal yi kese nit jël na 4 millions def ko ci visa un mois 15 jours bu jeexee ci dëkk bi ak immigration clandestin yi yéen a yem parce que da ngay obligé daw di làqatu pour mën a dimbali sa famille muy lu metti ndax euh, boo xoolee jamono yi weesu bëri woon na samay moroom samay mag yi des ci ndox mi mu metti trop. Eh, waaw sank ba léegi may top sa ginnaaw di la woo nga melni kuma deg ma bama soxla nga ñew ba ci man. ya xam te rek ak bëgg a ci yow. lan la won waaw xana da ngay voyage. damay tukki. ala fi nga jëm sorna da ak sa bagage ba. mooy fils Espagne la jëm booy. ah kon Capa da nga am visa. duma ko doy ci gaay la laay jaar. non. Capa Thioly xanaa gisuloo naqar ak tiis bi gaay tek suñu rew ba tax nga bëgg jaar ci ndox mi. ne trou mom yalla mo lay dimbali bul ñaan yalla mo am ay millions bëgg nga avancement trop mais bu troupe bi amé ay millions rek coow li commencé parce que groupe bi pratiquement depuis 2005 la depuis 2005 la yalla dafa def ma ko mos diriger diriger té musu ñu am jafé jafe boobu légui ñu ngi dem ñu ngi liggéey ñu ngi def ay cassette té lu ñuy def aussi comme ñu ngi waxé né lèr lépp sa nay lèr la dañuy tok waxtaan ba final fan yi rek amna amna cassette bi mujjé tourner tourné fan yi rek pour mu génn ñepp la wo taaj cassette bi paré ndax ñu génné ñom ñoy wax na génn wala bu mu génn bu né du génn du génn bu né na génn na génn noonu la ñuy liggéey lépp c'est transparence